neex a faral dimanche maru ndakaaru liggéey rek a wóor Ada tus su bàkkoo mu neex su bëree mu gaaw barki Sëriñ Tuubaa xool suñu bëri jaar toog loo fa teg jeexal tus oh rafet na barki borom